ساتر لست صدقا وعني ما ما ساءني الله يسحنا كتبت وإني ساهر لست صدقا Amen. طوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معطي السول وللذي همته همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم أبدا وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلب العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قال إليه كلما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته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 والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي النفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد di leen siyaare ak gun yëgul te ci jiital kilifa gu tedd gi ci bis bu tedd bii xaasa ak ci fukki fan yu tedd yi amma nga xam ne des ci ful yoolub jëf laa qadarallah ñu ciy fulit mbogalum ab safar bu àndul ak njëgal amul nag jënn jëf ju baax ju jaam mën a jëf ak lu mu réy réy te yàlla farataalu ko ci moom man ca amee lu toll li ku tabaski mën a amee ci tabaski ci tuyaaba ak doonte ne dafa tabaski tabaski ma gën a suufe si luñ mën a tabaski te muy la jàpp ca moom ka ca des jëf ja gën rëy ci lu baax lu jaam mën a coobare jëf ko ki jëf-jëf ju ju baax ji bu tabaski ne moom nag daal di koy gañee loolu min baabi zalika fadlullahi yutihi man yashaa ومن باب تفضيله تعالى بعض الناس على بعض نمتان تنيني ديان تي صح يملولين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولي يملولين لين ملاكي يملو مم فعال لما يريد يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير كنكم انا تبسكي ak tabaskiyam ci bis bi dara mën ko wecc maa amila aadamiyun min amali yowma nahri ahaba ila llahi min ihraqi dam lim koy mane ci xar nag mooy mu am at bu jàppandiwul mu am fukki weer mu am juróom-ñetti weer bu eggul foofu lu néew néew mu am juróom-benn weer bu dee ci bëy mooy mu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ñetteelu at bu diggee ñeenteel gënati gëléem gu dugg juróomeelu at bu diggee juróom benneel gënati lu mu ci man di doon it bu mu am jenn ayib ju fés ju bokk ca ñeent ayib ya ca hadiisu albara ibnu aasib bu mu am it ayib ju yem jenn ci ñoom te fés ayib ju yées jenn ci ñoom wax nopp ñeent ya ñooy soox pat wopp jeex takk bu mu cee ci ayib yépp nag ju fees ak feesul muxtaar mangoogu bu ca boolee ami béjjën jaxase weex ak ñuul te ñu ñuul ya bañ génn lëdër la war bët ya la war ga biir ba tànk ya daldi nekk tànneefu tànneef niki mu dikke ci xadiisu sayida aysa ba radiyallahu anha te mu andiloo ko paaka bu mag daasloo ko ko ciw doj te ca mujj mu ñaan yàlla nangul ko mook njabootam te ñooy mbokkam yë ko gënoon a jege te àndoon ak moom diineem te gën ko caa jàppale ñaan mu nangul it xeetam wépp an urwata bni zubayr an aishata anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawad wa yabruku fi sawad وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد summa doxa bi saxiixu muslim mu war nag képp ku ko man tey asgor di jullit moo xam mag la wala ndaw góor la wala jigéen ku nekk fi mu dëkk la walla ku nekk ci tukki te du aj fii ba sawaal di jot ci la def gi gënee kum jàppandul ci moom fii ba jant bi so gannaaw ëllëg fu mu ko fi defee te du guddi mu baax def gi it lu mu gën a jege yor yoru tey bii ci lay gënne ba mu des ëllëg ci gannaaw jotuk tisbaar yor yoru gannaaw ëllëg lañ gën a taamu ci moom lii lan tënkoon kon ci bis bi dundal ci sunnas ku tedd ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ko boroomi xam-xam waxe ñu ne dara fàttali lu aju ci tabaski mi bu dee ci bis bii bu dee ci korite mu fàttali lu aju ci muurum koor moo xam fàtte am na wala amul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu amee lu cay topp soog caa topp yàlla nanu yàlla nangul gii ak yi ko jëkk ak jaamu yàlla yépp rekk te yàggal fi suñ kilifa gii nu yàgg ci gannaawam te may nu wér ñun ñépp léegi ñu jox kàddugu kilifa gi al te diglu ko mbokk yi ñu ngi ziyaare bu baax نيو ييب نينكو باخو دا ديف رك موي فاتلي نينكو دا واخي رك باخ ci waxtu wu ne ñu gën a fonk suñu diine waxtu wune mu gën a fonk suñu taalibe fonk diine gi moom mooy fonk digal bàyyi tere fonk taalibe gi itam ويواجه الجفجي دينا الباخ تيال ركتا الجف الباخ دي واخ الباخ الجف الباخ تيال ركتا تيال تصح تلك نغنى غور غور الباخ ma cee dolli rek moo di ñu gën a delloo si xel yi bu baax ci tawféex jur yi nga xam ne am nañu ko mooy boole gi sunu boroom boole sëriñ bi

ci biir loolu kon war nañu sàmmanteeg xormaam waxtu wu nekk waxtu wu nekk war nañu sàmmanteeg xormaam ñun ñëpp nag amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn du ko ne fa nga ca toll boo te boo nattee sa bëgg ci sëriñ bi dara waru caa dolli ko lu dul or la sa digganteeg moom or la sa digganteeg moom nga rus jëf lenn lu dul safaan nga rus ci sëriñ bi xormaal ko xormaal barab bii mu nekk muy dëkk bi muy Tuubaa xorma ji nun ñëpp la war amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn ku ne fagg ca toll mën ngaa jëfe foofa dëkk bi kenn ku ne ci nun war naa am kers ci sëriñ bi war naa ruus sëriñ bi ci nekk fi di fi nekk di fi nekk sabaan ku fi nekk war ngaa xam li nga am tawfiq ji nga am sëriñ bi ba bokk ci ñooñam amaat tawfiq dëkk ak moom fii war ngaa xam nag kon li nga am

ci baaxu sëriñ bi loola mu tàmbale caa rus sëriñ bi tàmbale caa am kers di góorgóorlu lu baax lépp lu mu xam ne ab safaan la mu di ko wattandiku ko di ko wattandikoo def ci dëkk bi loolu ca tàmbale ca gone gu ndaw ga jëm ci ki nga xam ne eh, dëgg la gone yi ñooy yaakaari ëllëg kon lu ñu doon doon di gone it war nañoo bàyyi xel ci xam ne ñooy ëllëg yi te xam ne lu baax rek lañu bëgg ci ñoom ñu xam ne am nañ xéewal bu rëy juddu fii fi sëriñ bi kon war nañoo teel def seen xel ci ormal ko ormal barab bi ci bañ fàttaliku fi di fi jëf benn safaan loolu muy gone gi muy ndaw li rawatina ndaw li ñi nga xam ne ñooy ndaw yi loolu moo war a nekk ci ñoom worma ormal sëriñ bi ormal dëkk bi ndaw ñi rawatina ñoom ñoo yaakaar yi war nañoo xam la seen wartif xam ne buñ dee wax sàmm war may dëkk bi sàmm war may sëriñ bi sàmm war dëkk bi dafa mel ne kon ñoo ci jiitu muy ndaw yi ñoom bu ñu xamoon dañuy jàpp ne dañuy xam ne ñu war a doon ñiy wattu dëkk bi ñi koy wattul sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorlu seen bopp ba noppi ci bëgg sëriñ bi gi ñu war a bëgg ak pësté ba ñu war a am ci sëriñ bi ak war ma war ma war ma jëleen ci war ndaw ñi dañoo war a jàpp ñoom dañoo war a jàpp ne ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy sawatu dëkk bi ñoo koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorlu ci seen bopp ba noppi ci kaw jéem a góorgóorlu tegu ci yoonu jub njub mooy buntu lépp lu baax njub mooy jiitu lépp bu jub amee lépp lu baax yomb xam ngi yomb jëfe gi yomb bu jub amul lépp tëju kon ndaw ñi war nañoo góorgóorlu bu baax xam seen bopp góorgóorlu bu baax xam ne li ñu bëgg ci seen bopp njub rekk leen koy may ca dolli ko mooy gën a góorgóorlu bu baax sàmmoonte seen diine gën a góorgóorlu bu baax sàmmoonte seen taalube li ñu bëgg seen bopp foofu la gën a yombe lu dul loolu dolli fitna rekk la loolu mooy ndaw ñi ñi nga xam ne ñoo toll ñoo ca toll ñoom dañoo war a jàpp ne ñoo war a wattu dëkk bi ñoo war a ñoo war a wattul dëkk bi sëñ bi bu xamoon loolu te def ko seen yitte day leen amal njariñ lool seen dundu àdduna gii waxuma la gu àllaaxira gañ jëm nañu góorgóorlu bu baax dellu seeni xel te xam ne dugg dëgg mën àdduna moom fitna juree rekk la amul benn njariñ kon góorgóorlu ci xam li nu am tawfeex jure ju nu am muy sëriñ bi wala bi ko dëkkaat ak moom loolu war nañ koo xam bu baax te gën ci góorgóorlu ja xam ne loolu moo gën a gaaw ci may nu li nu bëgg waxuma la jëf ji nga xam ne suñ diggante ak suñu borom lañ ko séqal yàlla yomba jëflante lool boo yéenee te defoo dara sax mu fay mu fay la dencal la boo jëfee benn mu defal la ko fukk tàmbalee ko di ko wéy mën na ko yokk di wéy waxuma laa nag defaru biir ga nga xam ne mooy moom lay àndal defaru biir ga mooy àndal day day indi des, day des, day day day jeexital barke barke ne lay defaral sa sa mbir yépp lu ci dolli ku muy kilifa yi gone gën a góorgóorlu njaboot gi xëy na jamono sax jamono tax na yombul waaye na góor góorgóorlu suñu kem kàttan góor lu ci ci ci yar ci yar leen ci sunuy sunuy su lépp sunuy kem kàttan sunuy su su su jëf suñu digganteeg ñoom suñu xamal rawatina nag jàngal taxaw leen baax njàng mi njàng moo nu gën a mën a noppal ci njaboot gi ñu góorgóorlu ñu ngi ci sax waaye ñu góorgóorlu bu baax gën leen taxaw ci jàmm njàng mi buñ tolloo ci alxuraan ñu def ci yitte ju sëkk ni ko ni ko baaxee defe buñ bu bu buñ jógee ci loolu ñu góorgóorlu bu baax jàng xam-xam kon loolu moom mooy suñu njariñ li nu bëgg loolu rek noo ko mën a may lu dul loolu fitna rek lay doon ma dellu si dëkk bi dellu si dëkk bi li nu ci waat ñun yépp mooy xormaal sëriñ bi xormaal barab bi ci tolluwaay jamono danaa di xalaat ne ñi dëkk ci dëkk bi bu ñu doyloo sëriñ bi nekk seenu liggéey ñiy bay di bay ni sàmm di sàmm ni jaay di jaay te doyloo sëriñ bi loolu da leen gàttandu ci lépp lu ñu bëgg ci na gën a noppalee na mu gën a barkeele dana di wax dama di xalaat ne dëkk bi ñaar rek bi ñaar rek ñaar rek ko séq ñi fi dëkk nañ doyloo sëriñ bi te fonk seenu liggéey yàlla dafa leen ci barke ñi fi ñëw dëkk bi tax leen a jóg bu leen dara tax jóg na leen sëriñ bi tax a jóg ku fi ñëw na ko sëriñ bi tax a jóg saare ñaan mu amal la njëriñ lool te du du ànd ak lu benn lor nga dellu ci sa liggéey kon ñaar ñooñu rekk ko séq nu góorgóorlu bu baax ci xam li nu am mooy dëkk bi ak boroom dëkk bi nekk bi fi nekk nan góorgóorlu bu baax sàmm dëkk bi na mu gën a selle ndax sell na ba noppi ndax ki fi nekk waaye nag nu nu sellal ko ci nuy xel sellal ko ci nuy xol sell lu sama borom buñ dew xadaasa loolu moo tax sëriñ bi mën nanoo góorgóorlu bu baax ci sellalal ko dëkk bi dëkkam bi ndax

mu fagguwaale ci njaboot gi yépp te lam ca faggu lam ca leen fagul jaboo na ci boroomam damay wax na sëriñ bi faggu lu ma a faggu faggul nanu ko lu mat a ñaan ñaan na ko boroomam te may na ko kon nu góorgóorlu bu baax ci xam li nu am te sàmm ko bu baax war maa dëkk bi rek suñu kem kàttan mooy warmal sëriñ bi loolu ñépp ko bokk gone am na ci wàll jigéen am na ci wàll góor am ci wàll ndaw am ci wàll mag am ci wàll ñun ñëpp ñun ñëpp bëgg nañ sëriñ bi la ca des mooy kon nan xam nan gën a xam lanu ci war suñu diggante digganteek moom dara jiitugu ci nag warmaal ko ci rus rus ko am kersa ci nekk fi nekk fi nekk fi tabaan nu góorgóorlu bu baax sunu kem kàttan te delloo si sunu xel ak suñu ittee nu delloosi ko nag ci njaboot gi góorgóorlu ci njaboot gi bu baax xam naa ne sax ñu ngi ci kem kàttan waaye ñu ko gën cee góorgóorlu bu baax rek ci yar leen jàngal leen def ci ñoom yitte ñoom it ñu xam liñ leen bëggal lu gën a tuuti tuuti xel ma ko yàlla dénk ma na caa xame lu baax lañ ko bëggal mu góorgóorlu ca ndaw li nga xam ne dafa tollu ci dugg àdduna kooku mu xam ne wurtaxante wa daanul góorgóor tegu ci yoonu jub bu tegu ci yoonu jub rek li mu bëgg ci lu baax lépp li ko war dana ko yomb li mu bëgg ci lu baax lépp dana ko yomb mag yi gën noonu rek yokk yi tëj bu baax ci jaboot gi di doole sant nag bu baax xam nan doxin wi xam na ne itam seen kem kàttan yéen a nga ca taxawaayu diini ji fa tabaarakallaahu الحمد لله رب العالمين taxawaay yépp itam gis nañ ko noo ngi ciy sant yàlla deen ci sant bu baax deen gërëm bu baax di doon la ñaan rek sun boom gën noo gàttu nag tawfeex Sëriñ Tuubaa ba ñun ñëpp nu gën a soññ suñu bopp ci nekk ci li sëriñ li sëriñ bëgg ci noonu noo ngi sant ñëpp bokk yëpp bokki taalibe bi yëpp ñoo leen sant di gënam di xam di wax ne kàddu yi jumluñ ci dara lu dul lu nu bëgg suñu bopp rek dafa mel ni dañ leen ci jiital lu nu bëgg suñu bopp rek moom rek leen bëggal la leen bëggal loolu rek moo waral wax ji kon nanu góor lu baax gën a sàmmante suñu diine gën a gën a fonk suñu taalibe gën a yokk suñu itte la jey suñu kem kàttan jërë ngeen jëf noo ngi sant ñëpp gannaaw bu ñu leen siyaaree suñu xol eh, sedd na ci taxawaay yi sunu xel dal na rafet nañ jortu bu baax a baax itam jërë ngeen jëf.